ñoom ñu wax yoon Macky ne ci nañ dem seeti feneen mais loolu fan la fan la fan fan lañ ko mën a natt ci Sénégal ci wàllu ci wàllu démocratie ñi nga fal ñoom ñoo ne lew li nga def du yoon Ousmane Sonko dañ koo war a delluwaat mu nekk ci liste électorale yow mi nga xam ne yaa leen fal di ndey mbilli gi nga ne loolu mënul am peuple bi rek moo mën a jóg taxaw ci fànn bi nga xam ne moom laa ko waxee ci jàmm ak salaam wane boppam pour que justice aussi li nga xam ne moom la xaar ci yoon mu def ko amul beneen bu ñu yaakaar ne Macky Sall danañu may dara dara dara dara sans cette résistance wala fii nee nañu ku lay xañam njeex du la mayeb seko du la may seko xaw ma dégg ngeen wolof yi am déet mais suñ mbokk baykat yi xam nañ li ma xam ne moom lay wax alors pour être bref j'en profite pour lancer encore un appel à la communauté international et rafraîchir la mémoire des journalistes yaakaar naa ne yéen vous n'êtes pas marabouté quand même parce que la communauté internationale semble être maraboutée et que le relais n'est pas encore là. Pourquoi je le dis Il faut rappeler, on oublie d'appeler les informations que nous avons, que depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, il y a eu 100 tués pendant les manifestations. Jusqu'à présent, aucune enquête. Je le dis, je le répète, nous avons saisi même le haut commissaire aux droits de l'homme. Zéro. On oublie très souvent la communauté internationale qui a environ 1500 détenus actuellement dans les prisons de Macky Sall. Ce sont des détenus politiques. On oublie qu'on a coupé Internet. On oublie qu'on a coupé TikTok. On oublie qu'on a coupé le signal à des télévisions. On oublie qu'on a arrêté injustement des journalistes, etc., etc., etc. sous compte et profit. Et crois, je ne vous mais à mon avis, la presse, l'injustice de Macky Sall, c'est un combat que nous devrions porter ensemble. Porter ensemble, c'est rappeler à la communauté internationale qui s'est jamais passé dans un pays des violation aussi graves des droits et des libertés sans qu'il y ait commission d'enquête internationale. Le chef des Nations Unies doit l'entendre de façon régulière et permanente, parce qu'il y va de la préservation de nos libertés, il y va de la préservation de la démocratie, il y va de la consolidation de notre unité nationale. Et nous avons tous les mêmes responsabilités. Vraiment, c'est l'appel que je voulais lancer. à votre endroit, à l'endroit de la communauté internationale et aussi à l'endroit du peuple sénégalais. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Président. Merci.